ñu xam ci ban angle lañ lay touché maintenant man fu ma bëggoon ñëw ak yow lan ngay tontu wala boog lan ngay wax ñi nga xamante ni dañu jàpp ni euh, nguur gi fi nekk jamono jii dañu tële et dañu commencé wane li nga xamante ni moo di seen ay limites. man damaa gis ne ñooñu gisuñu ne dafa dañoo tële dañoo gis ne dañuy réussir ñu ne c'est le moment ou jamais parce que xam nañu ne d'ici deux ans suñu réglé li ñuy réglé mën na koo sax bañ a mat réew mi dana teg ci raay ñoom ñu taxawaat yi ñu di leen déglu day jafe ci instinct de survie la ñu nekk. instant yi nii. waaw maa la wax loolu. ci lañ nekk instant maa la wax ci lañ nekk parce que xam nañu ne bu échéance yi rombee wala jamono yi rombee ba ñu lijjanti li ñuy lijjanti xam nga régime bu toog FMI ñëw pour lebal la xaalis nga ne ko téel malgré yaa ngi nekk ci ay difficulté parce que xam nga fi nga jëm dem même jël eurobond ci somme boo xam ne maanaam ci niñ la koy lebale noo xam ne sax mooy ëpp. bu la bu la FMI doon teg mais lan moo tax mooy teg sa tànk fu leer xam nga ñëw tey def nës nësal defoon ni gars yi doon def tëgg wëndeel après bor yi continuer di la njett doo xam noo koy lijjantee ak yooyu kooku ku xamul foo jëm doo ko def li leen jaaxal nag mooy euh, résistance bi ñu doon am état parce que gis nga moo tax jaar-jaar dafa am solo gis nga nit daan na bëgg soxna nga ñëw fi nga koy ñaan sa goro bu góor jël wëñ wëñ yu lëj jox la di la xool noo koy lijjantee épreuve la buy wane ne ah da nga mën a lijjanti sa àdduna da nga mën a lijjanti kim lay jox daan nga ñëw ñu jël sax tàngal jox la mant damay bañ a tudd la ca la ca topp ngay macc boo ko corrigé mooy ñàkk nga soxna léegi ñun dafa am ay épreuve yu ñu jaar yoo xam ne niñ ci génnee parce que dama daan wax ne ku mënta résister Macky ëllëg nga boo bëggee taxawaat puissance internationale yi comme ni ma la ko waxee sànq président Diomaye homme d'affaires bu taxaw nga ne da nga nekk ci problème koo xam ne ñëw pour jox la àddinay xaalis mais su paree à condition que droit des minorités comme ça nangam nangam nga ne ko maalank ba mu taxaw di ko naqarlu kon ñun xam nañ fi ñu jëmee beneen bi nag mooy nga ñëw ñu jox la benn kër wala ñu jox la kër goo xam ne mi ngi ci digg àll am tool am lépp nga xam ne àll bi bàyyee luñ la fa dara mais xam nga ne fii àll bi am na matt mu doy mën nga koo dem jaay ñëw def njël dundale sa waa kër